mënti nekk boo def délégué am nga responsabilité bu rëy bi ci mbir mi am nga responsabilité ci sa quartier bi nga ne amatoo mel ni mbir xew ci wala mu yëngu ci te autorité yëngu ko. def katu bu nekkee ci quartier kenn ñemewu koo wax wala kenn nanguwu koo wax mu nekk fa mun na am ay yeneen xale di roy ci moom ba mel moom ni mu mel bu nekkoon kenn. bala at bi di jeex mun na noo nekk juróom wala fukk te lu ñuy gën di bari jafe-jafe di gën di am ci quartier bi. moom la sëriñ bi digle di ko aaye lépp loo xam ne ni ñoom lompañ nañ ci ne yoon moo leen mayul ñu def ko nañ réitéré yëpp bu sëriñ bi jaree def demande ba ca président de la ñu def ko bu waree ab loi sax mën nañ ko war def loi bu waree décret mën nañ ko def rek lu ca war man nañ ko am pour ñoom ñu am habilité man caa liggéey nañ ca mën a liggéey.